allo asalaamaaleykum mbooloo mi euh, maa ngi lay sant bu baax euh, Boubacar Diallo yow ak Oumou Régina Sambou ci présentation bi nga xam ne moom ngeen di def ngeen di wax dama naan est-ce que kii ñuy wax sax man mii la parce que man As Diouf laa tudd te yéen docteur Abdourahmane ngeen doon wax xam naa bu ñu paree salle bi dinañu présentation bi rafet na lool yéen ñi fi ñëw ñëpp gis naa leen mënuma tudd ñëpp waaye bu cérémonie bi di jeex kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk te bëgg nuyoo def ay témoignages dinañ leen jox kàddu pour ñu jël parole mën a wax ak askan bi parce que nag kilifa boo ko déplacé ba pare aussi il faut nga jox ko cëram donc pour le moment damay nuyoo rek. nuyoo ci sama turu bopp man As Abdourahmane Diouf candidat élection présidentielle bu 2024 Sénégal man As Abdourahmane Diouf président coalition Abdourahmane 2024 ànd ko ak ay parti ak ay mouvement yu bëri ñoo xam ne ñu ngi fi du ñàkk dinañ feeñal seen bopp avant ñuy lancer coalition bi man As Abdourahmane Diouf président du parti awale ànd wattu askan bi liggéeyal ëllëg ñu nekk fi nag ñoom may leen organisation bu yanj bu mel ni donc au nom de toutes ces entités maa ngi leen di sant di leen gërëm ci ni ngeen ñëw wuyoo ñu pour ñu waxtaane bés bu mag bi di sant nag ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ma war a ay questions tey muy ay journalistes ay chroniqueurs ak ay citoyens yoo xam ni li nga xam ne moo concerné développement dëkk bi intéressé na leen premier panel bi fi toog nii ñoom lay commencé di nuyu Hajara Cissé xam naa yéen ñëpp xàmmee ngeen ko ci 2STV di nuyu Issa Tine moom ñëpp xàmmee nañ ko ci wàllu fajri di nuyu faatu Abdou Ndiaye ñëpp xàmmee nañ ko ci seen TV di nuyu maam Gor nga xam ne moom mooy borom billet yi bu ko neexee mu bindee ko nii bu ko neexee mu bindee ko nële te ku bind mu ne la juum nga ca nga binde moo tax maam góor bi ma koy jox livre yi livre yi bi ci gën a néew ay faute laa ko jox pour mu bañ a dal sama kaw donc loolu mooy néew bi ma bëgg a wax rek ñaari mbir pour mu bañ a gudd bu njëkk bi mooy dama ni bind naa fukki téere ak benn ma bëgg a leeral rek ne nekkuma candidat élection présidentielle ñu ne dañuy dem élection présidentielle ma tëju ne xaaral ma bind fukki téere ak benn xam nga loolu moom xel nangu ko boo fi nekkee di bind onze livres ci période bi gars ji nañu wuti parrainage ba motal te yow doo motal gars ji dinañ campagne te yow doo campagne ma bëgg a wax ne onze livre yi li tubaab di wax œuvre la maanaam ba ma commencé bind ba léegi la mu bind la ma bind moo mat fukki téere ak benn bi nga xam ne moo ci jiitu moom laa publié en 2009 xam nga 2009 ak léegi boo ko xoolee def na fukki at ak ñeent après chaque at wala ñaari at bu ma liggéeyee ci benn sujet ma bind ci proposé ko ba yi nga xam ne moom laa mujjee bind mooy 2023 donc c'est une œuvre intellectuelle li tax ma bëgg ko présenter Sénégalais yi fii ñu toll nii du ne pour ne dañ ko war a lire fii ak vingt cinq février pour mën ma fal mais dama leen bëgg a wax rek ne nekkuma candidat boo xam ni dama ne lay rek taxaw ne dama bëgg a doon président de la république dama am jaar-jaar dama am ay xalaat yoo xam ne moom laa yàgg baaxee Sénégal ak Afrique xalaat yooyu yëpp ba ma ko dajalee laa am yaqin ne war naa mën a amal njariñ sama réew te amal njariñ sama réew mën na jaar ci nekk président de la république ma ni nag gaa Abdourahmane Diouf dina leen présenter programme boo xam ne dina ñëw bu soobee yàlla waaye bëggoon naa sénégalais yi xam ci fukki at ak juróom yi mujj li nga xam ne moom laa bind ci xalaat mu nekk sama xam-xamu bopp bu ma amee Afrique ak ci biir àdduna bi ñëw wax leen ne lii laa xalaat ci mbirum développement parce que li ma bind yëpp ci mbirum développement la li ma bind yëpp ci mbirum ni ñuy yoree réew la yàlla daf ma dimbali ba ci sama parcours nga xam ne parcours international la ci biir Afrique liggéey naa ci lu ci mat lu mu néew néew ak 40 pays dans le continent africain te fu ma fa dem soit gouvernement bi laay liggéeyal wala secteur privé bi wala société civile ñu may jox ay problème may indi ay solution solution yooyu nga xam ne moom laa yàgg proposer feneen jàpp naa ne war naa ko mën a proposer sama biir réew comme ça dëkk yooyu niñ ci profité Sénégal mën ci profité lu mel noonu donc œuvre intellectuelle boobu moom laa leen di présenter tey ma bëggoon ñu waxtaan ci en attendant le programme beneen aspect bi mooy aspect levée de fonds levée de fonds mooy tey man kandidaa la bëgg naa ku ma jàppale ci ni may demee campagne électorale te bëgguma nekk candidat mastata candidat mastata mooy koo xam ne waxoo fi defoo fi lu tax ñu war la mën a topp ba pare nga bëgg laaj nit ñi jox la ay moyens yoo damay campagne électorale nga yàqu mani man am na ñoo xam ni ah seen dund yëpp dañoo am ay suuf di ko dajale ñeneen ñi dañoo am ay kër di ko dajale maanaam ku nekk am na lu la yàlla may muy sa avantage comparatif tey ñàkkul ne am na candidat élection présidentielle yoo xam ne fii ñuy jëlee seen ay moyens mooy jaay seen kër wala jaay seen suuf man nag puisque yàlla mayuma yooyu yëpp te bokkuma ci système boobu nga xam ne dañ ne ku gaañ alalu réew mi téye ko sàccuma luubaluma dencuma ay milliards bien que yàlla teral na ma mën a téere yi nga xam ne téere yi nga xam ne maa ko moomal sama bopp xalaatal ko sama bopp bindal ko sama bopp corrigel ko sama bopp même maison d'édition bi maa ko créé publier ko sama bopp donc frais yi ci am yëpp muy ay frais intellectuels muy temps bu ma ci def muy ay tukki yu ma ci def muy xaalis bu ma ci investir sama alalu bopp laa ci def loolu laa ni ni ko waa bawol bawol yi di waxee ma leen di nuyu naa ko weccee ko ak askan bi ba nga xam ne ku ci yaakaar ne war nga ma mën a jàppale boo ma jàppalee ci sama campagne électorale boo demee sa bibliothèque dañ nga fa fekk ay livres yoo xam ni li nga xam ne candidat bi moo ko bind te fii ak fanweeri at ñeent fukki at man nga ne lii kat maa ko jënde woon ci candidat Abdourahmane Diouf yàlla nag yàlla dogal ba booy am souvenir yooyu di ko nekk ni say sët nga mën a wax ne maa ngi ko jënde woon ci candidat bi tudd Abdourahmane Diouf te en 2024 yàlla dogal mu gañe nekk président de la république muy sa souvenir yes loolu laa bëggoon nuyoo loolu laa leen bëggoon dalale di rester nag à votre disposition pour ñu commencer waxtaan